bismillahi rahmaani rahim uh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar di ñëw ak yéen rek ci waxtaan yi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ca weeru gàmmo gi ba mu teroo ba léegi di ko barkeeloo ci bis yi tey nag ñu ñëw ci wax ne sunu sëriñ bi di sunu kilifa sunu wasila ñuy ànd ak moom gàmmo gi fii ci Thiès dana baax lool mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw ak fépp fu ñu mën a gàmmoo sax ci àdduna ñu xam ne gàmmoo nag dafa am nu muy demee doo rekk ab tukki boo xam ne da ngay jóge fa nga nekkoon wala nga fanaan ci baas di ko defee ni la neexee waaye ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am worma ndax yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ko bind moo ko wormaal moo ko gëddaal kon lépp loo xam ne lu ko laal la noonu la war a demee kon nag mbooleem ñi nga xam ne dañuy gàmmo nañu am yéene dundal guddi yonente bi salaa salaam def ko mbégte ndax mbégte mi mooy koo xam ne yàlla sunu borom bi mu la naree dimbali te xel la dugal la ci lislaam te ku ne xam ne lislaam xéewal la ci moom la ko jaarale li tax mu jaarale ko ci moom it du lu kenn mën a firi mbaa lu kenn xam waaye ngëneelu yàlla sunu boroom la mu yónni ko ngëneel la ci moom mu def ko ngëni ngën gi mbindeef ngëneel la ci moom mbooleem lu mu bind moo tax loolu nag ay ngëneel la yoo xam ne kenn xamul lu mu doon lu dul al inqiyaadu taam rek womatu rek topp te jaamu moo tax ku nekk xam na ne it euh, Cheikh Mouhamadou Mourtala mi moom Serigne Saliou euh, fii muy taxawale gàmmo gi ci Thiès da koy def rek na ko Serigne Saliou daan defee ndax Serigne Saliou day ku ne xam na ne yit ba mu doonagul xalifa euh, Serigne Touba moom gàmmo la ko ñëpp xamee. ku nekk xamoon na ne ku fonk gàmm la ku ko daan taxawal la bi nga xamee ne yàlla dogal na tam mu doon xalifa su daan yëgle màggal moo gàmm gi la daan boole yëgle ndoo kon gàmmu am na fu mu ko yeggoon xam na ne yemut ak bis yi weesu xam na ne yemut ak bis yim dëgmal ndax noonu nii la ko daan leerale sëriñ mu Moutala mi it bi nga xamee ne mu wéyal liggéey boobu noonu rek la bëgg mu demee kon nañ ci góorgóorlu ñëpp ñun ñëpp taxawee ko noonu loolu nag lu sëñ Touba leeral la leeral gi mooy sëriñ bi dafa wax ne euh, tanzimuhu bi sunnati naa lil janna maanaam kuy màggal guddi yonent bi na ko màggal te teg ko ci sunna sunna mooy lépp lu lislaam nangu te bàyyi lu mu tere loolu mooy sunna yaquduna naa yaquduna lil janna ndax loolu moo ñuy dimbali wommat ñu jëme ajjana bi his di yaadul minna ci màggal gi buñ ko defee niñ ko war a defee xéewal yu dolliku rek la ak yokkute waaye nag ki koy am mooy li muxlisin muazim ki nga xam ne da koy sellal di ko di ko di ko màggale noonu ah moom day e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne boo ko bëggee teral dara jiituwu ci ci teraanga yooyu jàng alquranul karim ah, dara jiituwul ci teraanga yi di tudd yàlla dara jiituwu ci di zikr wala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di jàng lenn ci tagg yi nga xam ne moom la ko cheikhul xadim tagg ñun de noonu lañ koy defee loolu yi nag euh, ci jotaayu murid yi ñu bëree bëri moom la ñuy def ñi ma xam ñëpp daanaka moom la ñuy def mooy muqaddamatul amdah fi mazaya al miftah moom la ñuy jàng ak jazbul xuluub li allaamil xuyuub ak mawaahibu naafia fi madaihi shafia di ko ràbbale ba keroog guddi gi di jeex boole koog barzan ji